président mënoo ci topp da lu dul euh, haute te haute boobu kenn mënu ko définir ba naan da nga koy da koy mm. da nga koy da donc moom peut-être mënuñu ko topp mais njabootam ñu ngi leen doon tudd njabootam la woon mais effectivement njabootam la woon directement ak indirectement njaboot bi nag da nga ciy boole peut-être ay ministre ak yeneen ak yeneen parce que aussi bul fàtte ni am na dossier yoo xamante nit ñi liggéey nañ si ba wax ay waxu milliards d'armes yoo xamante ni yooyu yëpp il fallait peut-être que mu jox leen ay teg ci yenn conditions yoo xamante ni kenn dootu leen toppati seen crime ak yooy noonu yëpp mën nañ ko effacer ba kenn dootu ci revenir peut-être bu amee lu mu doon wut ci Ousmane Sonko loolu lay doon te am na ko parce que aussi. Euh, mais est-ce à Ousmane de donner ces garanties là. tey jii au président Macky Sall waaw am na ko am na ko am na ko am na ko ci benn benn benn fànn. Pastef n'a pas voté la loi d'amnistie mais n'a pas aussi attaque la mm-hmm. xam nga boo àndul ci dara da ngay cohérent par rapport ak ça. déet maam bi euh, maam Pape Matar. xaaral ma yegali rek. Pape Matar Pape Mamadou Seck ngi. def ko mu yegali li muy wax nii loolu dama ko koy dama la koy dama la koy rappeler rek pour nga balaa moo jàll parce que yàgg bala ma ci ñëw. Pape Mamadou Seck mi ngi ci kaso bi depuis deux ans dégg nga loi amnistie bii pour ma wax la benn affaire bu gàtt rek Pastef dafa xatoon ci moom quoi parce que moo deele mais moo yor ay prisonniers man nag gisaguma prisonnier prisonnier laa wax de yi nekk ci kaso bi. Mhm. ku doon ku doon bañ pour gars yi wate loi bi pour ñu mhm. génn am na loo nga xam ne boo ko toppoon tamit dafa am ñooy tooñ de d'accord te ñu ci prison bi tëdd nag en fait lool lool lool ci du ci àndu Cheikh Ba xam tax mhm. euh, parce que au plus ay deux semaines moo fi dase régime bi nekk en place mhm. donc ku mën a muñ deux ans mun a muñ deux semaines surtout nag absolument tëdd boo xamante da nga ko tëdd ñëpp xam ne dañ la tooñ mhm. waa Pastef ak ñi nga xamante dañ tëddoon ci kaso ñëpp jàpp nañ dañ leen tooñ ñëpp dañ leen jàpp que ni voilà dañ dañ leen teg toox boo xamante ni kenn wax leen ko woon teg ñu dund ko dans la dignité déggoo ci kenn ku ci transiger déggoo ci kenn ku ci ni bàyyi leen ma euh, génn boo ma génnee damay ànd ak benn bokk yaakaar alors ñooñu bu ñu accepter subir euh, lu mu tudd yooyu lay affre euh, subir yooyu Euh, donc je pense pas que ni ay semaine wala ay jours ñoom ñoo war a tax ba ñu ni dañuy transjuger parce que tout simplement seen condition dafa nekk condition yoo xamante ni yu inhumaine la alors euh, pour dire que ni euh, loolu quand même peut-être loolu la ci doon wut pour que Pastef wala kenn ci opposition bañ a attaquer cette loi parce que en fait loi bi moom lay protéger parce que moom mi nga xamante ni peut-être il a quelque chose à se reprocher moo tax mu indi loi boo xamante ni dafay amnistie amnistie xamante ni kenn nekkul demandeur du partie civile du askan bi. Mhm. du ñi nga xamante ni aussi dañ leen doon cité comme étant ay ay lu mu tudd. ay force euh, terroriste euh, voilà wala wala ñoo xamante ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko en fait ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw loolu. donc peut-être loolu la ci président Macky Sall doon wut li tax peut-être bu jàngee ci histoire am Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade il n'a pas eu le temps de préparer ses arrières. Mhm. Abdoulaye Wade dem na ba benn jamono lan la doon wax nañ dàq élection yi pour deux ans ñii naan dafa bëgg inaugurer ay stade ay ay ay ay aéroport mhm. alors que c'était pas lim ci soxla woon mooy que mu am benn période boo xamante ne dafay effacer ay traces mhm. ba li nga xamante ne tey jii Karim Wade mi ngi koy subir du ko subir. Mhm. demandé woon na ko bay naan deux ans rek laa soxla. pour ma àggale samay projet la gars yi ni ko non mhm. dafa jàppoon que ni. bu ñu valider moom jàppoon na ni benn obstacle amoon mooy ñu valider sa troisième candidature bu ñu valider candidature am bu demee élection dafay doon référendum ci moom hmm. moom confiance boobu la demee woon te jàppoon na ni en face amul woon koo xamante ne mënoon na ko hmm. tere gagné élection yi hmm. préparé woon li nga xamante ne moom mooy succession euh, Macky Sall aussi préparé ko woon parce que jàppoon na ni benn obstacle la amoon muy Ousmane Sonko ba mu créé euh, lu mu tudd ba mu woon la menace de Diomaye au sérieux mu dem na ba dernier moment ñu def ay sondage ñu ko attention Diomaye mii de risque de gagner de les premiers tours man hmm. donc il me faut du temps il faut que ñu créer dilatoire utiliser waat PDS bi nga xamante ni da leen gëmloo woon dès le départ que ni dina fexe ba ñu ci élection utiliser leen utiliser ba ñu am temps boobu lim si njëkk def ba mu wootee dialogue mooy annoncé que ni day saisir l'Assemblée nationale pour une loi d'amnistie alors que waxoon na ko ak euh, point de presse bu mu doon def ak journaliste yi ba mu ñëwee ci dialogue loolu la njëkk wax te loolu ça n'a jamais fait l'objet d'une discussion mm-hmm. lii décision la boo xamante ni jël naa ko ba pare mooy que dinaa saisir l'Assemblée nationale pour que ñu dem voter loi boo xamante ni loi d'amnistie la alors durant euh, cette période là il fallait que ñuy am ay débat yoo xam ne dañ koy animé ci ay dil na fii ak def na fii ak def pour moom mu mën a am li nga xamante ni soxla na ko président Macky Sall jamono ji Amadou Ba gagné ñàkk yoonam neewu ci xam nga bu ñu doon def édition spéciale euh, semaine euh, semaine dernière laa ni président Macky Sall dafa nekk koo xamante ni dafa xam renoncer à des combats yoo xamante ni jàpp nañ mun koo gagné nu mu woon à Dakar renoncé woon à Ziguinchor noonu la renoncer à cette présidentielle. ba ci candidat wu. candidat bu ko renoncé yàgg na. te gis nga président Macky Sall mooy koo xamante ne bu la wóoluwul rek la lay xëcc jege la la lay xëcc teg la ci wetam. bu la wóoluwul kase la lay xëcc teg la ci wetam noonu la def ak Mimi Touré def ko tête liste liste liste liste benn bokk yaakaar parce que jamono jooju noonu xamoon na ne Mimi Touré am na ay ambition. te bu ko deful tête liste benn bokk yaakaar. Mhm. Mimi dafa doon dem ci élection ak propre listam te bu demee propre listam dafay préparer les élections présidentielles mu xëcc ko ci wetam gëmloo ko ni yow yaay sama nit nu mu ñàkkee wóolu Mimi Touré noonu la ñàkkee wóolu amado Ba. xëcc ko ni ko yaay suñu candidat parce que xam na ni. Amadou Ba bu ko choisir bu ko choisirul Amadou Ba dafay doon candidat te Amadou Ba bu nekkee candidat te nekkul candidat wu benn bokk yaakaar peut-être dina am benn capital de sympathie bu ànd benn bokk yaakaar dafay lu mu tudd dafay doon euh, kii dafay partager le bilan du président Macky Sall donc ku maire Macky Sall du voter Amadou Ba alors que bu Amadou Ba demee ci bannière boppam mën na am nit ñi ni attention Amadou Ba mii de mën nañ ko jox li nga xamante mooy présomption de bonne foi mën nañ ko jàppee comme Mimi Touré comme keneen ak keneen ak parce que simple exécutant nañ woon président bi moom moo nekkoon responsable. mu ni donc kii dama ko def loolu. dama koy indi mu nekk koo xamante ne dafay partager sama actif ak sama passif bu naree doon candidat dafay porter forcément sama bilan te bu porter sama bilan mooy que day ñàkk ces élections donc moo tax mu choisir Amadou Ba mais y' a y' pas en fait à à chercher de midi à 14 heures gis nga euh, mbiru mbiru mbiru Sonko bi je pense que ni dafay gën a euh, firndeel li nga xamante ni euh, sénégalais ñi ngi koy wax. depuis le départ mooy que dafa am benn période boo xamante ni. te dafay confirmer aussi l'exception sénégalaise maam Birame bu ma juum mi ngi koy wax ñun ñooy réew boo xamante ne dañuy jaar révolution te duñu jël ay armes te cette fois-ci ñu amaat possibilité am suñ deuxième alternance deuxième laa wax. parce que man dama jàpp ni mooy véritable alternance mooy li xewoon diggante 2000 xaw ma du di moins li xewoon en 2000. moo ah. nekkoon première alternance. Mhm. mais leneen li du alternance. diw remplacé continuité remplacé diw du alternance. diw remplacé diw du alternance kon mën nañu ne chaque jour alternance dañuy dund parce que bu aw Diop remplacé Pape Makhtar alternance loolu alternance mm-hmm. alternance mooy ñu changé mm-hmm. lii ñu nar dund jamono jii nii mooy que par force dañ dund benn alternance boo xamante ni dafay ñëw après mille te yaakaar yi nga xamante ni moom la Sénégalais amoon ci 2000 ak Abdoulaye Wade yaakaar yooyu nañu amaat tey ji te le peuple nag vraiment a le droit quand même la Cheikh Bara euh, juste damay si euh, li nga xam ne nii mooy discours Euh, Ousmane Sonko bi euh, ci la bëgg am avis euh, Cheikh Bara on a vu que ni souvent buy wax il tire sur Macky mais tey jii nii on a entendu un Sonko boo xam ne nii tiire na plus sur Amadou Ba parce que yaa ngi koy wax sànq ci sa propos ne xëy na comme ni nga ko waxee. wala du ma ne xëy na sax mais euh, entre guillemets lañ koy wax ne Amadou Ba dafa foogoon ne wala dafa promettroon waa parti wam ne après ñoom Sonko wala du si mel dinañ aju dinañ ànd si moom ndax souvent dañuy wax ne booyam la n'est-ce pas loolu loolu nga wax waaw léegi nag mais ñu gis tey euh, Ousmane Sonko buy wax euh, ne désormais Amadou Ba est notre seul adversaire il est pire que Macky Sall muy benn mën nañ ne chargé chargé na bu baax ki lee di Amadou Ba Euh, est-ce que du euh, lu ni mel c'est juste aussi tamit pour wane ne euh, li yenn yi ñuy ruuma ndaat naan ñoom ñoo bokkoon seen impôt et domaine Sonko sax Amadou Ba la gën a àndal que ay jomaay ak lu ni mel est-ce que du c'est pour leeral loolu beneen question bi ndax xam naa ne peut-être xëy na du yomb posé waat bi mooy en tant que yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a nekk Euh, sànq yaa ngi naan ne bokkoo si mais gis nañ ne ku ci fes nga ci euh, mouvement doomu daara parce que li may wax li may bëgg posé damay ñëw si wàllug programme parce que on a wax leader bi lañ àndal ak àndal mais booy def sa choix ci leader bi c'est pour xool lan la mën a apporter réew mi parce en dehors les débats far fii far